at bu jot bi ñuy waajal feetu korité nit ñi dañuy daw utali ginaar yi fii ci marché Castor bu Dakar ñenn ci jaaykatu ginaar yi am nañ tiit ak njàqare ak lii di grippe aviaire bi nekk ci réew mi loo xaw xaw nañoo affecté tuuti na parce que ji affaire bi moom vraiment ginaar yi dafa jafe lool loolu moo tax loolu moo waral ren ji ginaar yi seer lool ginaar moom comme nu daawee am comme daaw ak daawaat géej ren ameewul loolu ginaar yi vraiment moom dafa xaw a manqué moom ren ji dañuy liggéey nii rek pour bañ a toogee nii mais ren ji moom vraiment amuñu si dara. clients yi mënuñoo ñàkk jënd lii di ginaar ndax moom lañ tàmm di togg ci bile événement. sonn nañ trop si feebar bi dugg si ginaar yi te ginaar manqué na fi mu ne nii dafa cher ginaar yu ñu doon jaay 2700 ñu koy jaay 3000. client ñu ngi jënd si bu baax mais xam nga rek ñàkk pexe moo tax ñuy jënd parce que lu ñu doon jëndee 2500 ñu la koy jaayee 3000 day ëpp ko ñoo ngi koy waajal bu baax sax. diggante daaw ak ren dara yombul. lépp a cher tout dañuy demee ngor rek ak muñ comme yàlla moom lu mu nam ma rek dañuy muñ rek. yàlla mi ngi am de waaye jafe na moom ndax si àll bi fi nga jëlee moom fa la gën a seere léegi. frais li nga daan jëndee ak léegi li nga jëndee yow tollootul moo bu fekkee ñenn ci client yi dañoo taamu jënd ginaar yu ñu defar ba noppi ña ca des ñoom li ñu bëgg mooy dem ba ca poulailler ba tànnal seen bopp waaw fii moom boo ñëwee mun nga toog ñu tànnala li nga bëgg jàppala reyal la ko waaw parce que ginaar moom du fanaan sax ginaar bu ñu rey pare du fanaan boo ñëwee da ngay wax li nga bëgg ñu tànnal reyal la ko defaral la ko ba mu baax yi defaral ba rek ñu koy jënd ñu ngi jënd yi sans départ rek kenn ku ne loo soir rek yaa ma gën a xam waaw kenn ku ne am na loo bëgg rek ginaar naam manquéwul ci réew mi waaye dafa cher ñii di jaaykat yi tiit ak njàqare la ñu àndal li ko waral mooy seen chiffre d'affaires boo ko méngalee ak at yi ñu génn dafa wàcc lool